ñun ñëpp sëriñ bi fépp njabootam nekk mm. joxe joxe na ko ndigal mm. tàmbale ko ci man nii mm. kenn ku ci ne fa nga féete wax na ndigal ngir ñu njëkk lii ba nga ñëwee ci ci moom waxtaan ak moom ngir jox ndigal ñun ñëpp ñun maa nga daaru minam suñu saa nga daaru mus ak këram yëpp kër wu ne teg na fa doomam comme fa tegi jox naa ndigal na nga nañ ànd la jàppale président Diomaye jàppale président Ousmane Sonko jàppale parti bi bañ am ndam am majorité assemblée nationale te am nañ ci yaakaar ndax lépp lu mos a gis mooy ànd ci te jàpp ci rek loolu kanam lay jëm waaye du dellu ginnaaw kon nag la ngeen rafet njort bu baax ne fii da ngeen xam ne li sëñ bëgg rek moo fi am barabam yëpp it foo dem digal la fa joxeel daañ ko mat bu ko def bu mat sëkk loolu yi xaw ma ko soxal leen loolu tax